jërë ngeen jëf mbokk yi gis ngeen ni nga xam ne noonu la yëf yi doore ñi ngi waat ci deuxième combat mu war a dox ci diggante ñaari jàmbaar euh, ñaari xale yu nga xamante nii kenn dootu leen présenté mu nekk combat amateur nekk combat phare ñu ciy xaar bëre mu war a dox ci diggante Anta 2 mi nga xamante ni jàmbaar la dem na fu nekk présenté fa Sénégal diic ma ci làmb waaye xale bi muy bëreel muy caatu xay dàgg nga xam ni kenn dootu ko présenté moom itam ca mën a bëre ga euh, dalu bëre ga mais intelligent ba car macha allah ñaari xale yooyu nag euh, la Sidi Diakhaté production taxawal waaye mu war a doon nag drapeau monsieur le maire Yves Lamine Ciss muy maire Moralan jàmbaar jooju nga xam ni mooy quatrième fois fii nga xam ni dikkam la Thiès seet si le grand promoteur muy Sidi jaxate euh, ànd ak moom ci wàlli làmb làmb jooju ni ñu ko tuddee nag bis du tuuti borom lay tollool mooy wàcce sumay kàddu jox ki nga xam ne moom mooy Anta 2 mu jàkkaarloo ak presse bi nuyoo ak ñoom Anta ñoo ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay fay El Hadj Moustapha ginnaaw ban sante yàlla julli si yonent bi dañuy sant suñu ñaari waa di sant sama sëriñ sëriñ Cheikh mu sëñ Fallou Ndiaye Daabaay di nuyu waa Thiès gépp di nuyu écrit mbooloo di nuyu koñ ba ma jógee taax kaw man na Fall kër Seex kër Mamelage di nuyu sama ménagère Fallou di nuyu sama coach Mor Dior ak Ndiaye jaara di siyaar gaa yëpp di nuyu sama adversaire bu baax di ko ñaanal wér di ñaanal sama bopp wér ba le bu neexee suñ borom yàlla may man daam ci kawam. ayca mu ko ah, caat xooy dàgg ñu bàyyi la nga nuyoo ak àddina. waaw ginnaaw ma sant yàlla. julli si bi sant sama ñaar waay ji bu baax a baax sant sama sëriñ sëriñ Babacar di waa assistance bi di sant fu ma di sant tamit sama gaaya fu ma jógee waaw Morala waa parce que tarkindaay jaama gën a maa ngi woo maa sant ñëpp daal bàyyi ma kenn di bëgg tamit sama adversaire bu baax baax Mourane mi ah waaw di sant gaa yëpp bàyyi ma kenn. yan kàddu nga koy yóbbante eh, seen ci seen jàmmaarloo yéen ñaar jours yi. non li ma koy yóbbante moom ndax jàmbaar la moom xam nga jàmbaar tamit jambaar moo koy daan waa di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm rek maa ñu jàmm ñu ñëpp ñu fekkee bis bi mën a jàkkaarloo maak moom ñu deflante. ndax ñun ay gaynde lañu xama waaw di ko ñaanal wér rek ak ñaanal tam sama bopp wér di ñaanal tamit jàmbaar gars yi journal journaliste yëpp wér tamit waaw. jàmbaar jàmbaar moo koy daan lu lu muy tekki moom. non moom xam na loolu. Hmm. jàmbaar jàmbaar moo ko moo ko fi jëlee. Hmm. champion champion moo ko fi jëlee. Hmm. noonu la demee. champion koy daan moom moo xam ne taxaw na temm ci daan la. non non champion champion kay daan kay maay champion bi. Hmm. maa koy jàpp daan. bu neexee suñu borom. Hmm. bis baa dinaa ko jàpp daan. Hmm. waaw xam nga xale bi. xam naa ko bu baax seetaan naa ko. waaw fii làmb la. lan kon foo teg maa koy jàpp daan ko ji. waaw si champion bi mu wax rek champion champion kay daan maay champion bi maa koy jàpp daan. foofu rek laa ko teg. nee na mooy champion bi. non moom gis a la wax xalaatam la wax rek man jàpp naa làmb man képp ku ma dañu làmb maa ko mën man sama man cat man gëm-gëm moom la moo nekk si man ama balta daal boo ma ko joxee man dama koy daan ta man dañ dañ ma yónni dañ maa yónni dañ maa yónni dañ maa yàkkamti ah. te ñi ma yónni ñoo bëri ah. lu toll jaama gën xam nga jaama gen boo nee jaama gën rek yaa ngi wax dëkku làmb nga ni Morola ah. xam nga ni tey jii ñooñ tey lu ñu soxla rek amatul ay négociation quoi. da ngay dem jëli ko ñëw. force kii man man li ma yor li ma yor man maayewu ma ko abalewu ma sarawu ma li ma yor man li ma li ma moom laa jëli force. kin lay ni mbaa du métti ci yow xam nga kin lay yónni. non non dëgg man li jëndu ma li jëndu ma li mu indi. Eh. man kii bu arbitre soufflé bu soobee yàlla bu arbitre soufflé làmb ji bu mënee bu mënee deux minutes ma jox ko victoire mu dem. loolu dañoo ko déggandoo kon lijjantiwu la. loolu waxu làmb la. damay hmm. laaj Morolan googu ma jugee. man du ma mbër mu ñuy caxat caxatee jële ko fi de. Hmm. barke alxuraanu karim ku may nar a man ku may daan di nga bëre ba wan dugg boîte vocale. moom nee na deux minutes bu la daanul bàyyi la ak victoire. non waxul mbër waxu mbër la. ah est ce que gëmut li muy wax na. billaahi wallaahi taalaahi buy daan de am man lay doon man ñii dañ maa mën a daan. Ah. fan nan may daanee. yii nii dañ koy yónni te li yónneen bi du yaa ko tax du ñii ñoo may daan Alaaji Moustapha ça va xale bu ndaw laa <laughs> làmb dafa am man si yaakaar man bu ma duggee làmb yaagul mhm. wax na maa ngi sant yàlla gëm-gëm moo ma yóbbu fii quoi kii bu muy bëre fekk bërëguma wan tamit dama kay sant tamit sant bu ma bu ma mayee sens dama may sens maa ngi gërëm di ko ñaanal tamit champion la bu ko neexoon mu siisu mhm. yaa ngi dégg mais defu ko mais dama lay wax leen benn affaire mooy gaan man jàmbaar laa <laughs> man maa nekk si maa nekk foo xamante ni ay jàmbaar ñoo ma yeewoo nekk si milieu milieu milieu ay jàmbaar ñoo ma dar. ñoom si man sama maam yaa man dégg ma su ma naree aree ren gars yi rey fii lañ may rendee fii. Eh, kii Modou Anta Gueye le tigre de Thiès moo koy indi. non dégg nga man kii ma jóge si moom xam naa ko may laaja eh. yee kii tamay jóge si moom léegi taxaw am keneen patron waaw patron non waaw <laughs> man kees xam rek kees bi kees bi non xam rek ñun da am lu ñu kii quoi am ngeen problème ñoom laay gooteeg ñooñu ñëpp am problème kii wax rek lay def kii ah. xam nga ni mënul ma <laughs> billaahi wallaahi taalaahi man bu arbitre ne për xam nga fii dafa neex a waxee. mais arbitre ni për génn suñu diggante bi. Hmm. billaahi wallaahi taalaahi dina xam ne lépp dëgg la. moom sax nag dala fay jël. voilà mais daanaka taxatoo koy jóg. ñoom laay gooteeg ñoom loolu nan nag ba génn fii. Eh. yow ku génnagul fii di laaj ay. dama koy duma. Ah. bu indee bëre ma jàngal ko bëre. waaw léegi loolu mënul nekk man bëre amul lenn loo ma ci mën a jàngal virgule. jaara jaara billaahi wallaahi wa taalaahi. <laughs> amul loo ma a jàngal ci bëre. billaahi eh, eh, yow boo dëggalee sa bopp billaahi wallaahi taalaahi ma duma la daan la jël bu set wicc. kaay booy maa la dàq bëre fopp. <laughs> bokkuñu sax kaay nii tuuti waaw man làmb nag faaw ngeen may nu tuuti ma nag gars yi ma xamewul làmb si ay wax. dama a namoon man bañ a man du ma waat si làmb. man man du ma waat si làmb du ma ah. wax loo xamante ni ka ma làmb jaral na ma ko. Ah. waaw nag léegi li nekk si man. Ah. ak li ma sama li ma sama xel may. bu yàlla defee jaam rek. man man kii kii kii doyuma sax gond ba xëy. jeex na dëggoo ma de léegi jaar fa ta sa waay man damaa naqare damaa <laughs> naqare bëreel de te neex a signature jaar fa tàgg lu leer laa lay wax mën nañoo taxaw fii ngay wax mais bu tëjee barrière yi hmm. non di nga xam ne lépp dëgg la jaar léegi jaar fa tàggoo euh, woo xam ñoo lay jàppale euh, waaw di di woo sama waa koñ di woo waa taax kaw gépp di woo waa kër maam alaaji di ah. woo waa na Fall waa kër seex mhm. di woo sama mbokku tayba tayba yi ñoom Ousseynou Assane grand Moussa Djili di woo gaay yëpp di woo sama sama gaay yi may jàppale ku si mel ni monsieur le maire Birame Souleye Diop maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci combat bi di woo Malay Diop maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci combat bi Mass Diop maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci combat di woo sama grand Badara maa ngi lay xaar ci béy ndax à tout moment rek yow yaa ma daan jëndal béy waaw di woo tamit xam nga suñu waa koñ ñoom Cheikh Diop di leen woo ñu jàpp ci combat bi grand Ñambe Diouf maa ngi koy woo mu ñëw jàpp ci combat bi woo ëxlu lawbe ga yëpp di leen woo ñu ñëw jàpp ci combat xam nga di woo sama patron bu ñëw jàpp ci combat bi Tanor Thiam ñoom Alaaji Fall waa Kër Seex yi hmm. bàyyuma kenn waa mbaar ma man na fa Mamour Sall maa ngi leen di woo jaay ñu ñëw jàpp ci combat bi waaw waaw ñeneen ñi waaw di woo waa maquette maa leen ñëpp daal Thiès ñëpp ah. sama ginnaaw waaw man moom ñi may woo moom bëri na trop hmm. ndax man moom ma fi am topp sama ginnaaw dafa bëri quoi waaw <laughs> waaw ginnaaw bu ma ginnaaw ma bu di woo waa Morola yaa ngi dégg maa ngi fu ma juddoo yoroo Diamaguène di woo waa Diamaguène si combat bi ah tarkindaa yi bàyyi ma si kenn suñu grand site dafa am combat moo la rajo ñu nga ñaanal tamit yàlla defal ko ndam di woo sama doomu nday sama ilal feu Forus maa ngay woo si combat bi Forus maa ngay woo si combat bi di woo sama mag sama pap sama lépp Zé Baye Fall maa ngay woo si combat bi di woo Sunjara suñuy grand waa Jember bi yëpp bàyyi ñu kenn di woo sama gaay ñoom Araba ñoom Moustapha ñoom Laay xama sama booy Modou Kara euh, euh, Modou Kara ñu koy woo di woo waa waa bi ñëpp waa Morla bi yëpp waaw di bàyyi ma kenn su ma limee def juum Lamine Cissé nag Is Lamine Cissé moom combat yi jar na ko jënd na billet yi bu yàgg billet yàgg na jar yow Morla ngay jóge drapeau drapeau Yves Lamine Cissé ngay bëre mu ma delloo promoteur ay rasa mhm. non non waaw di woo Yves Lamine mhm. di woo Moussa Moussa le maire Maguette Mbaye maire maire Nodou Goudiama maa ngay woo xam nga di woo 100 pour cent jaama gën di woo 100 pour cent Morola waaw di woo sax mbokk yi nekk ginnaaw raay waa ginnaaw raay maa leen di woo si combat bi seen combat la ayca jërëjëf waaw léegi nag li ci des xaaj ba beneen beneen kii mbokk yi mu ngi noonu drapeau Yves Lamine Ciss la euh, mu nekk quatrième édition mu war a dox ci diggante xale yi fii xas-xas loo ñu bàyyi leen rek ngeen def photo de famille bu ko defee rek ñu daal di yeggale li ci des ayca bis